Euh, je vous remercie en, en fait je voudrais préciser quand même que je suis inspecteur des impôts. ok je suis en détachement au ministère de la justice. De la justice. depuis mais. Ah ah je vais faire le lien je, je, entre okay. entre la nga wax léegi ak mm. la ma doon wax par rapport à l'équité territoriale xam nga mm. souvent les exonérations on ne les donne pas comme ça les pays réew yi ñu ngi nekk ci compétition pour attirer les investisseurs réew mu nekk am nga say ngelaju pour xëcc investisseurs yi pour ñu mën a investir parce que dans tous les cas s'ils investissent ici ils créent des emplois mais pas ils créent laissez-moi laissez-moi terminer euh, ils créent des emplois ils créent en fait une plus-value pour notre pour notre économie c'est-à-dire que le le mécanisme des exonérations obéit obéissent à des choix rationnels duñ xëy rek xool la jox la jox la jox la jox la exonération mm-hmm. mais day fekk ne sur sur on sur une grande échelle buñ ko xaymaa amaana la ngay la ñuy indil moo ëpp fuuf li nga waroon a joxe ci wàllu impôt ensuite également ci wàllu exonération il faut il faut souvent ñu def ñu def ñu def très très attention dans l'interprétation des des chiffres faut c'est pas parce que def nañ exonération que ça amène ipso facto une moins-value de l'État de tel parce que ça c'est une moins-value théorique boo xamee ne duggu loon bañ naan ñàkk na ko Ah, pour faire le lien avec li ma doon wax wax naa léegi euh, ñu ngi sàkku kii war a wutu président Macky Sall muy mu mu yokk jéego yi ci wàll équité territoriale mhm. pourquoi pas ñu mettre en place un dispositif incitatif bu nga xamante ne dina permettre un investisseur bu demee installé wu Matam mhm. avantage yi muy am bu nekkoon dakaar du ko am dina dina permettre mu suqali économie économie économie Matam par exemple créer des zones des zone des zone franches des zones yoo xam ne day développer le tourisme day développer la culture. parce que on dit souvent que Matam dafa tàng mais Marrakech moo gën a tàng Matam. pourtant moo gën a tàng Matam Dubaï moo gën a tàng Matam pourtant c'est devenu des zones. où et pourtant les parce que l'homme a décidé. d'en faire une destination privilégiée. je pense que c'est des approches comme ça. Mm. qu'on devrait devrait développer pour chacune chacun de nos territoires. Mm. nu nu nu bañ a xool rek exonération yi muy kii mais ñu xool ci wàllu yokkute lan la ñu mën a jëral territoire mhm. Sénégal yëpp pour qu'on ait un développement endogène mais également inclusif pour équitable pour équitable justement euh, ci yeneen région yi bu ñu ko defee maatam